Wade gars yi jóg nañu addiya moo génn addi addiya El Gassane moo génn El Gass El Gassane moo génn le numéro 3 le El Gassane moo nekk ci kaw en quatre le oh le numéro 3 moo ci kanam El Gassane moo génn en en troisième position Atiya El moo génn ba léegi El moo génn ba léegi Assane Ndiouk moo ko moom El El Gassane moo génn El Gassane moo génn El Gassane moo génn ba léegi moo El Gassane moo génn. waaw El Koso El moo génn première position waaye deuxième position maa ngi gis Adiya ak Siga ñoom ñoo fa toog waaye mois mi ngi ci biir grup bi waaye nag dañoo tas ñoom ñëpp waaye El ba tey moo nekk ci kanam ñu ngi nii suñu xommal bi wut si wut si bi Koso. at El Kazan moom lim lañ jox ba léegi sori sori na moo ngi dugg foofu ci écrit waalo écrit Ndiouk les frères Ndiouk la jógee El Kazan moo nekk ci kanam ba léegi lim joxe bëri na trop idi waaw El Kazan lim joxe bëri na El Kazan lim joxe bëri na joxe na lu mat huit longueur wala dix longueur mi ngi nii ci deux cent bi mu mi ngi nii ci bi 200 000 moo ko tee en arrivé waaye deuxième groupe bi ñoom ñëpp kenn bàyyiwut maa ngi gis Siga moo nekk en deuxième position waaye Adiya mi ngi ci troisième position waaye première victoire premier prix Al Ghazal bi ñu war mooy Serigne Saliou Gueye Zoké Moubarak. Serigne Saliou Serigne Saliou moo ko yor Zoké Moubarak waaye fas yi mi ngi jugee écrit les Thank you.